Pathé mbooj euh, maa ngi lay nuyu. maa mbooj nga nekk euh, journaliste analyste politique euh, déjà naka nga gisee affaire Ousmane Sonko ak i fiche de parrainage même bu fekkente ni Sénat mi ngi ordonné direction général des élections pour ñu jox ko ay fiche de parrainage ba léegi DGE dafa daal di bañ ban jàngat nga am si mbir moomu. waaw ñu naka dañuy jéem koy jàngat réew mu matul mooy ku ni doomam du doomam askanam du askanam yooyu ak xam ak yelleef euh, soxalu ko ndax boo jugee si réew ñëpp lay seeyee ci nga dem ba jëm jamono ñu wutal la carte war nañ boo demee bu beneen jëm jamono bu fekkee say at may na la ko nga war a eh, war a tànn ndax sa coobare mooy nga tànn su lay jiite lu boobaa dañ war a bind ci liste yoo xam ne ni ñooy tax ñu mën a xam ñu mën a tànn ak fu ñu tànn waaye taxaw rek boo comme ko gisee léegi ci jamono yi gis benn carte d'identité ñu la kii fii de dunduñu ko ci liste électorale yi loolu du ngoon boo xoolee président Sarkozy du France ñaari ay weer yi ñu génn ci ginnaaw yoon dafa dal ci kawam ñu ko fii ay diir di bokk ci wote waaye taxul ñu génn ko ci liste yi wote ndax loolu kenn du ko ci moom la dugaloon suuf si juddu soo matal bu boobaa war nañ la dugal ci liste électorale ndax vote bi fii coobare ku nekk la kenn du la dóor ñu la demal vote bi bu la neexee ñu jox la sa ak ak sa yelleef mais bu la neexee nga ñu sama ak ak sama yelleef fii man mun naa ko bàyyi ba ci loolu mooy amul benn yoon bu ñu mënee di nit ki mënul nekk ci ci ñuy wotee ci liste ñuy wotee te li ñu déggoon bu baax nag nekk ci liste ñuy wotee taxul nga mën a wote ndax bu fekkee ni pourtant bi ñu wotee fekk na la si buum fekk ni na la si dogalu buur xëy na boobu doo wote bu boobaa yoon mooy tëral nit ki Fatou Mbodj mi ñu daan keeg gii li ñu defee sàkko yi mënul wote waaye du tere ñu bind ko ci liste électorale léegi nag li xaw fi mooy hmm. euh, bu fekkee ni buur taxawal na ni dinaa xeex diw ba ñu daan ko daan boobu defe naa loi électorale moo ko waroon waaye du code électoral bi boole bi ci am laa liste électorale loi électorale moom la ni ñu nga daanee ñaari at yoo xam ne eh, yu wóor la waruloo bokk ci ay vote mu comme ni ñu def charte bi waaye génn la ci liste yi du benn la Euh, Pathé aussi euh, lan mooy chance yi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko au niveau de la cour de justice de la CEDEAO est-ce que jàpp nga ni mën naa am dëgg foofu lay non c'est bu fekkee ne dañuy wax luy yoon luy ak ak yelleefu doomu aadama mhm. Ousmane Sonko war na mën a war na nekk li sax war na mën a war na nekk ci liste électorale léegi mu des moog yoon mu des moog loi électorale lu ko loi électorale xañ mu xam ne loi bi xañ na ko woon lu ko loi bi may mu xam ne loi bi may na ko waaye taxaw rek ni nekk ci liste électorale amul fenn suñ ko mën a nangoo kon bu fekkee ne yoon ak ak ak yelleefu doomu aadama Ousmane Sonko cour de justice bi mun na wax ni ñu bind ko ñu bind ko nag wax waxuñu dana tax mu bokk hmm. voilà euh, aussi ca ca cour suprême chance am ci cour suprême parce que aussi ñu ngi xaar euh, euh, daane ñu ngi xaar en tout cas décision cour suprême par rapport à cette question waaw ma ne Omar ay ma li ñu gis ci IDGE waaw xëy na ñoom dañu sukkandiku ci li am ci njëlbeen li am ci njëlbeen mooy mbirum Ousmane Sonko ni mu deme ko ñu daan ko buñ ko daanoo léegi ñu dem si loi électorale loi électorale ni kii ñu daan mënul bokk comme niñ ko defaree Sarkozy waaye war na mun a bokk nekk ci liste électorale loolu daal moom waaye nag bu fekkee ni Umar lii dee wax rek. Mhm. la ñëwee di wax ñoom tamit. yow amoo amoo si yaakaar trop tey jii euh, bi nga xamante ni juge euh, Sabassi euh, joxoon dëgg Ousmane Sonko patriote yi dañoo amaatoon espoir surtout pour élection présidentielle bu mille vingt quatre mais li ñu gis ni dalul xel tey jii lan mooy avenir politique ah, Ousmane Sonko ses chances aussi pour deux mille vingt quatre luy yoon. Mm-hmm. luy àq Ousmane Sonko nañ ko ko jox. mooy euh, am na kayit yu am na carte am na passeport war na mun a nekk war naa nekk du sax lu war a mun na nekk war naa nekk ci liste électorale bu fekkee nag am na daan buñ ko daan comme niñ ko defee président Sarkozy te daan boobu yoon ci daan boobu yoon wax nii hmm. moom mun na ko xañ ñu bokk ñu ci génne daan boobu waaye moom pour mu nekk ci liste électorale moom hmm. lu war a nekk la quoi euh, ex Pastef est-ce que fi ñu toll nii vraiment war nañu ut plan B am na wax euh, si li ñuy wax nii hmm. dañuy wax ci lu nekk li nekk mooy loolu parti boobu nga wax nee nañu amul nee na boog amatul mhm. yoon tas na ko kon du parti boobu moo wut plan xëy na ñi fa nekkoon te amoon cofeel ci Ousmane Sonko ñooy seet naka la ñu mën a def ndax seen xeex ñu mën ko def waaye di wax naan Pastef plan B euh, tëru tëddul ci yoon Mm-hmm. Euh, ñu wax un peu si retour Karim Meïssa Wade euh, ñetti weer képp moo des euh, ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre ba léegi kenn gisagul Karim même buñ koy annoncé sax est-ce que Karim sax am na ay am na ambition présidentielle fii ci réew mi Sénégal. dafa naa Karim moom su toog yoo na am na luñ ko sas xëy na am na lu ñu wut ndax moom bi ñu waxee moom ba léegi. lépp lu dal PDS ci lu bare ci moom la jaar ndax falul bàyyam deux mille deux mille deux la fi ñëw lu bàyyi ji daanoo am na ay tolof tolof dem na si ba euh, am na si yi mu am léegi euh, moom si boppam ñaan na nguur gi ñu may ko ndax mu mën a euh, avion bi muy jël mu mën a wàcc Ndakaaru ñu ngi ñëw ndax mais ndax bu ñëwee dana bokk. xanaa hmm. ah, loolu mooy wax ji waxuma diir bu gàtt bi. waaw mais dafa am lu nekk ci ndodd. Hmm. lu wóoragul lu leeragul. Hmm. nga xam ne pàpp yi dem na si yàgg ñu junj ko te junj boobu nga xam ne du leer du leer ba faw. su mun na ñëw mun na bokk. waaye bu fekkee ni lu lu wóor lañ ko teg ak yoon lañ ko teg Karim mënul bokk waaw. voilà dernière question Pathé Mbodj Amadou Ba candidat wu benn Benno Bokk Yaakaar di amal ab tournée euh, pour yow tournée boobu tournée économique la comme moom ni mu ko waxee wala tournée politique la dafay préparer boppam pré-campagne la daal. xam nga bu fekkee ni dafa am comme ni ñu koy waxee wala wala abali bët. Eh, fu ko neex ngay xool gisoon nañu Macky Sall saa yu jamono bi bu mel ni amee mu yëngatu bu fekkee ni nag léegi jël na koo xam ne def na ko yaa ma fay taxawal yaa fay toogal te koo xam ni nekk na fi at kenn déggu ko kenn gisu ko ndax biñ ko falee deux mille vingt deux septembre deux mille vingt deux ba juin deux mille vingt trois kenn déggul Amadou Ba kenn gisu ko kenn xamul lu mu mel kenn xamul lu mu sol kenn xamul ndax dafa weex kenn xamul ndax dafa ñuul bi euh, crise bi amee mois de juin te dañuy commencé gis ñu di egg octobre kële ni man daal euh, du ma dem waaye am naa ku ma leen di dégg am naa ku may wuutu moo may doxal moo may taxawal moo may waxal mooy Amadou Ba waaye nag maa koy sax kon nag Macky Sall mooy sax Macky Sall mooy def ci mm-hmm. eh, turu Amadou Ba Amadou Ba di dem Macky tànki Macky mm-hmm. bëti Macky loxo Macky du leneen. loolu du merci beaucoup Pathé bu doon loolu demoon na boppam. Mhm. ok voilà merci bien. jërëjëf euh, Pathé Mbodj ñu ngi lay remercier bu baax a baax. ok jërëjëf soxna Moreau. voilà Pathé Mbodj ñuy fàttali ni taskatu xabaar nga aussi nekk analyste politique merci ñu ngi lay jaajëfal. merci bien Moreau.